ñetteelu xaaj bi ci juróomi xaaj yi am na yoon yeesu jox na lu ëpp juróomi junni nit ñu lekk ba suur yéesu dafa jël juróomi mburu ak ñaari jën sant yàlla damu mburu yi dogot jën yi mu jox ko taalibe yi ngir ñu seddale ko nit ñi nit ñépp lekk ba suur ñu dajale desit yi ñu fees fukki pañe ak ñaar nit ñi waaru ci ni yeesu sakkanalee ñam wi ñu ne ci dëgg kii mooy yonent bi yàlla digee ne dina ñëw ci kaw suuf léegi malaaj leen juróom lan la yéesu def ak juróomi mburu yi ak ñaari jën yi sakanal na leen bala lu ëpp junni nit lekk ca ba juróom benn lan lanu nu yooyu di won ci mbirum yéesu yeesu am na sañ ci kaw lépp